ñu ngi ko tuddee taaru Sénégal taaru Sénégal nag nekk émission bu bees boo xam ne rédaction bu 24 actu ñoo leen koy eggee ni ngeen ko xamee Sénégal yàgg naa taaru Sénégal dëkk la bu taaru mais ñun itam ñu fas yéene ko gisee ci beneen anam donte li nga xam ne euh, ñu ñu fi jiitu wala sax ay kilifa jaar nañu fi ci liggéey waaye bu weesoo taar bi nga xam ne Sénégal am na ko ay ay immeuble ak yeneen ak yeneen donc ñu ñu gis ne Sénégal war na mën ci geneen anam. moo xam jikko yi ndax yaakaar naa ne jikko bokk na ci li nga xam ne moo yor réew ndax sénégalais bu nekk foo mën di nekk ci àdduna yaa fa représenté yeneen sénégalais yi looloo tax nag tey bi la émission ñu fas yéene ko ubbi ànd ci ak ki nga xam ne nag moo di Matar Bou moo tax bu nag bu ñu ko waxee mu nekk historien bu mag waaye itam nekk ci Touba TV nekk tamit ci rajo boobu ñu ñuy wax euh, Benno FM ñu fa yéene ànd moom bi la jotaay ponk bi nga xam ne tànn nañ ko ngir waxtaane ko muy sëyu mbokk ku nekk xam na ne sëyu mbokk bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne jamono ji ñu ngi koy jànkoteel ndax bu njëkk maa ngi ñu daan sëy ak léegi lan mooy différence bi en tout cas historien bi mi ngi toog waaye jotaay bi duma ci wet benn yoon dinaa ci ànd ak ki nga xam ne moo di soxna Astou Sylla nekk journaliste nekk tamit ci rédaction bi ma ànd ci itam ak soxna Mame Fatou Kébé donc ñooñu ñooñu fas yéene gunge ci jotaay bi nga xam ne mooy taaru Sénégal kon xam naa dañuy jox rek ki nga xam ne moo di Matar Mboup mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci 24 actu yi Matar maa ngi lay nuyu. jërëjëf sëriñ sëriñ maa ngi lay fay bu baax a mhm. ma toogandoo. Mhm. di nuyu waa 24. active yëpp di leen ñaanal jàmm ci ci liggéey bi rawat na émission bi muy taabu Sénégal mm-hmm. waaw mel na émission boo xam ne amul lu bare bari mm-hmm. euh, tey nag ngeen jël ponk boo xam ne mooy lépp muy sëy mm-hmm. surtout sëyu mbokk euh, dafa mel ni nag Sénégal boo dee xool réew mi lépp lu baaxoon démb rek jamono ji am na lu ci sikk am na lu ci sikk sëy d'accord bu njëkk moom ni mu nit du takk ku dul mbokkam. nit du takk ku dul mbokkam xam naa dinañ ci yaatal waxtaan incha allah rabbi ma bàyyi ñi nga xam ne ñoom laay ñoom mooy gunge ci émission bi soxna Asou Sylla Asou ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan ci 24actu point com. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di si biir seen site internet bi di 24actu. tey nag mu nekk seen émission bi nga xamante ne bu bees tàq te rédaction bu 24actu bi nga nekk li nga xamante ne moo di taaru Sénégal comme li nga xamante ne mën nañ ne ëmb na lépp. Mm-hmm. di nuyu li nga xamante ne moo di suñu gan di Matar Mboup ñu koy nuyu bu baax di ko ziar. Mm-hmm. di dalal jàmm bu baax a baax. Matar Mboup xam naa aussi euh, ñu bàyyi ki nga xam ne nag moo di soxna Mame Fatou Kébé moom itam di ñu gunge ci jotaay bi mu nuyoo ak ñi nga xam ne. ñoo koy seetaan ci 24 ak yi maam Fatou ma bàyyi nga nuyoo nam moom nañ la. waaw salaamaaleykum mbokk yi si internet yi ñuy seetaan ci 24actu point com mm. ñu indi leen émission bi nga xam si ne moom lañ tuddee taaru Arsenal a mm-hmm. mm-hmm. moom dinañu dugg ci thème bi waxtaanee ko parce que taaru Sénégal la wax ah. waaw tey dara du yomb ndax tey dañoo indi thème boo si ne dafa am solo lool. Mm-hmm. muy thème bi xam si ne mooy mooy sëyu mbokk. dañ ko Matar waxee léegi. sëyu mbokk donte ne daana am tey daana baax bu njëkk tamit léegi dafay faral di ay jafe jafe-jafe yu bari. Ah. waa ci mbokk bi xam naa tey jii nag xam naa mu ci kanam dañ gën a yaatu. voilà dinañu xool aussi euh, génération 90 bi wala sax 92. Mhm. Euh, jamono ji naka la ñu gisee sëyu mbok kon Matar. Mhm. bu njëkk bu lan moo tax ñu daan jël nit jox ko mbokkam ngir mu sëy. waaw xam nga dañuy wax sax sëyu mbokk. moom mbokk. Mhm. dañuy wax ne nit bu tàkk. mën ngaa bañ a doon mën naa bañ a doon sa mbok moom da ngeen a bokk famille mais da ngay bokk. booy takk fexe ba takk koo xam yéen a bokk lu ngeen di jomb. ñun mm-hmm. su ngeen bokkee lu ngeen jomb rek mu doon sa mbokk. waa ay sama doomi bàjjan la ak sama doomi bi mm-hmm. mais bokk leen lu ngeen jomb koo xam yow yi nga rus. Mm-hmm. moom lay rus. li nga jomb moom lay jomb. li ngay bañ moom lay bañ. bu njëkkoon. mag ñi bu ñu bu soxna. dañuy xool parce que dafa am loo xamante ni Ousseynou dafa am ci réew mi ci ni ñi duñ ci bàyyi xel. muy nit ñi dafa am ay xeet yu am. muy ay jaafu ay darobe ay wégéej ay seey loolu xam naa xalaas classe gi xamuñu. waaye ñooñu xamuñu ba tey xamuñu <laughs> mooy mooy néeg yoo xamante dañ naan la boo ci takkee. su fekkee da ngaa nekk ab sëriñ di ñaan. Hmm. soo takkee ab doroobe. loolu ñaan yàlla mën na ko. yàlla da koy nangu. su fekkee da ngay commerce. Hmm. soo takkee ab wégéej. Hmm. yàlla day yokk sa wërsëg. wégeej su mm. fekkee wégeej maanaam ci néegi néegi la bokk. ci xeetu waaw. su fekkee da ngay xare. Mm. dama dooni buur nga. Mm. soo takkee ab seey. koo xare mën nga koo dàq. te du ay caaxaan nit ñoo ko ñoo ko caaxaane dama la ci indi exemple bu bu am solo. sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ni ñu yaakaar. soxna Aminatu loolu njëkk denc. ak ci néegu seey. am sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Baar. dencaat soxna tuuti. Mm-hmm. moom sëñ Mourtala ci néegu seey. ñoom ñaar ñëpp bi ñu fi jógee. dafa waxaat nañ ko indilaat ci néegu seey bi ñu jox ko soxna Penda Bouye ci néegu sëy moom soxna Fatou Mbacke mm-hmm. kon nga loolu du ay caaxaan léegi nag sa classe bi bu ñu tàkk yooyu na xale bi jeex <laughs> mais xam naa xam naa dina euh, bëriwul dinaa ci bëri ay morom astu est ce que léegi jamono ji fi mu toll duñu wax ne rek fa ñoree rek fa lañ koy witee mm-hmm. parce que mbëggeel nag vraiment tamit nag capitaine lu borom moom de astu voilà mais man fi may dikkaate bu baax mm-hmm. mooy comme que moment bi nga xamante nii moom lañ doon sëyee bu njëkk ak di seeti mbokk bu njëkk demeewul noonu instant bi donte sëyu mbokk mhm. bu mbokk gi tasee sëy bu sëy bu tasee mbokk gi tas am bëri ñoo xamante ni loolu ñuy wax mais man damaa jàpp ne toll nañ moment bi nga xamante ni mhm. euh, waruñoo jël sëyu mbokk rek mhm. comme ni ko maam yi doon dundee ndax exemple jamono bi nga xamante ni ah, non ci ci benn côté na nañu ànd mais ci benn côté tamit duma ànd ak moom parce ma su fekkente ne yow da nga ne man kat sama mbokk am na ñu bëri ñoo xamante ne en général li ñuy gëm mooy man bokk la mais tamit sama mbokk moom lay aawaloo. Mm-hmm. te yow doo xool ba xam ñoom ñaar. Mm-hmm. bëggee li ci war 100 pour cent mi ngi ci. Mm-hmm. ndax sëy dafa nekk loo xamante ni jàmm yàlla la. te nekk na loo xamante ni tamit naan ma war da war raxma coofeel war na cee am limaade war na wax na ko ci biir waxam ne loolu yëpp méngoo ay bëgg-bëgg loolu yëpp dafay am mm. mais nit ñi ñoom am na parents yi nga xamante ni maanaam dañuy forcer nit ki rek jàpp ne ñoom kat mm. say bokk moom fa force nit ki moom forcément kii moom forcément mm. moo comme la war a awalo te tamit fekk na bëggeel bi si war a am cent pour cent bu am kon daal fu mu ñoree ñuy teg ko ko wala demee noonu waaw Matar waaw affaire mbëggeel yi yéen a ko xewal rek ah mbëggeel xewal rek ma rek xam nga bu njëkkoon xale bi du am ay bëgg ak yooyu Mm-hmm. xale bi day toog am nday am bàyyi bàyyi ma ko yilif mm-hmm. xale bu jigéen day tëdd bu guddi ñu fëgg ko ndiw mu naan ñu la jógal mun papa lan la wala yaay ñu ko ngay war tey ah. fu muy sëy ñu ngi ko kër diw lu ci teg baat mais matal ma da ngay max la bu ah, ne xale bu ji góor bi dañuy toog bàyyi ak ñu ne ko dama sa kër bàjjen bi dama seeti nangam ak mm-hmm. yi nel d' accord am na mais ba pare xam nga Sénégal lan moo ko yàqu sëñ dañoo baaxal lu bon bonal lu baax ah, ci ne d' accord fii ne dama def benn affaire fii ne wut ñëpp jàpp waaw ñëpp mhm. jàppale ñu mujj baaxul. Mhm. classe Awa Ndiaye gii ñii ñëpp ku ci am boo ci ku ci am dëkk. Mhm. boo nee ko yàlla nga mujj mën a nettali woo ma. wallaay maam Fatou mi daal ah, waaw nettali woo ma mais mujj du lu baax la. xam nga bu njëkk man. te li am waaw ñeent. te ku a yor benn ku ci ku ci am dëkk yor benn ja doon boo nga ne ko sax ba ñaan a ko gënal mooy yàlla boo am mujj yàlla boo am mujj parce que loolu ñoo ko def suñu culture gëmloo ko nit ñi mm-hmm. xale bu ndaw bi màgg di sa doom mm-hmm. suñu néew ni la yàlla nga mujj ngeen ko nettali woon ko mm-hmm. yàlla boo am mujj ngeen ko abit mais xale bi loolu lay màggaale psychologiquement loolu lañ gëm jàpp nañ ni mujj baaxul beneen bi mooy sëy mbokk xam nga sëy mbokk dama laa wax léegi affaire bi nit sëy mbokk bu amee mën a am moo gën dafa am koo xamante ni day boroom xam-xam di ko ni Sénégal da waroon jàng ay waxam muy Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Al Maktoum daa waxoon ni sëy mbokk koo xalaat ah. waruñu koo xalaat waruñu koo xalaat maanaam. nit ñi ni teg mu ni wala boog buñ ko xalaatee waruñu koo wax. Hmm. ni ñi ni teg mu ni wala boog buñ ko waxee. Hmm. waruñu koo def. ah daanaka nag li tax waruñu koo def mooy bu bu bu tasee mbokk nga tas ndax yàlla daa fonk mu xam foofu lay lan lay jàngale. Hmm. mais war a tax muy tas. xam nga ñu ko yéen a gëm ay sëy yi entraîné nii sëy bu tas naa parce que sëyatu leen yéen ñii nii sëyatu leen. voilà entraîné ngeen di sëy. voilà mooy Ousseynou gis naa ko bëgg naa ko am na lu xale ki ki doon dem di dem yor na yàlla yéen jéeri joon xam ngeen jéeri joon ku nga xamante dégg nga ko. Mm-hmm. keroog bi yaayam di war xam lu mu def. ci armeel la jaar. armeel men ay armeel. ñu ne ko nañ teggi ndax lii armeel la ab seetu jaar ci armeel mu ne ne jor ko ndax su ma jógee ci kër gi su ma fi su ma su ma jógee ci kër gi fii rek laa jëm si. du ma tas du ma fay du ma mm-hmm. fasi. tey Sénégal gépp dégg nañ jéeri joor leeral. d'accord bu njëkkoon nit ñi dañuy sëy pour am doom bi ba d'accord di wujje ngir am doom bi baax. Mm-hmm. mais léegi loolu am dañuy sëy ngir intérêt. voilà gis naa waa coofe nan naa nga ma ki naan yéen ci parce que fi ne soo gisee moom muy wax nii naan mm-hmm. dañ lay forcer dañ lay forcer waaw mais c'est normal man sax koo mm-hmm. mën sax d'accord say mbokk man kenn ko rek mën ngaa gis koo bëgg nga takk ko sa mbokk mais na ngeen bokk lu ngeen di jomb ah mën ngaa takk jigéen yow am loo xam ne ngir ko def mm-hmm. mais sa jabar du ko def d'accord loolu baaxul d'accord dinañ ci des si ma ndax man li ma gis mooy sëy mbokk mm. maanaam li ma ko waxee mm. ndax donte na mag ña ak léegi suñu jamono léegi dafa wute bu baax a baax waaw ndax même mag ñi bu njëkk ñoom mm. sëy mbokk bu ko yor dafa am luñ cay jomb am luñ ci lu bari suñu jamono léegi ji nag loolu lépp amatu ci ndax wax wumba la dara waaye ñoom ñi la a taamu sax mooy comme tey jii ci parents yi nga xam se ne ku mbokki ku góor gi ñu naan ah yow kat gis naa ne maanaam kee bokkee ak moom ni wala yaa bokkee na mag moom ni danga ko war a taamu jël ko soxna boo dikkee foofa ngay jëkki amee problème mhm. ndax léegi xam nga li tax léegi ma leeral problème mel nga problème boobu fi laa la mhm. léegi xam nga ñun xale yi doomu ñooy sëy mhm. te danga fay fekk moom ñoo xam si ne amaana duñ xool sa xelum xale ma nga xam si ne moom ki lañ la jële dañuy yàkkal fi profito ndax war na maa jël ndax sama bopp la ah waruma toog mu di ma rëcc nga jël ko nga dem jëli ko ci kaw xale Mm-hmm. mu dikk amaana na muy sëyee ma nga sëyee xelu xale mm-hmm. maanaam yow boo ko waree comprendre war koo lijjanti lu bari doo ko gàggante mm-hmm. wala boo ko gàggantee pare da ngay wëlbati bu borom kër dikkee ah sa soxna def na lii def na nangam ci kër eh, di ko jàpp man loolee. daal góor yi ngay tuumal daal mais est-ce que ndax li ma foofu léegi li ma foofu. maa tey ji loolu boo ko gisee boo ko defee. xale bu jigéen bi tamit xamal tamit xale moom xale ba mu lay doon bu yàggee nga dem sa yaay ah man kat jaaxle naa ndax damay gis ñu fi mu naa nga man bu yàggee tamit loolee kooka tamit xolu yaay ma ngay soosalante hmm. bu ko defee léeg-léeg nga dig ngeen ko ah yow de sama doom da nga koo jël hmm. waaye jàppee woo ko comme sa doom hmm. bu ko defee comme mbokk nga commencé wut di xajal di ay problème wala yéen ñi euh, mais Matar justement damay ñëw ñëwaat ci i Matar est-ce que tamit euh, xëy na xale yi du ñu gis moo tax li leen dal di leen di dal sëy yi tey la ñu gën a am problème. non xam nga donte sukkandiku. xam nga lu ñu mën mm-hmm. xam nga ñii lu ñu mën. Mm-hmm. génn comme ni ngeen koy def génn. waaw génn may farantu nii. Ah. lu neex la ñuy def mën ngeen gis mën ngeen non dafa neex lu ngeen di mën ngeen génn ak ñoom 10 ans doo leen problème. lu neex waaye sëy mënuñu ko. sëy dafa wute. Oh, mm. parce que nag xam nga ki war a génn war naa mën a sëy. Mm. yow su fekkee ne da ngay génn Ousseynou. Mm, xam nga génn moom ngeen waxaat loolu na xëy. ok fii ne daanaka fii ne soo gisee xam nga nag moom sama émission moom dama lay wax li fi nekk. sama sama invité da ngay génn nit ki mën naa la bébé. Hmm. nga naa ko séy waaye bis bu séy séy war wàcc. boo tëjee dëgg nga. xam nga da ngeen mel arrêté day sensé. day sensé beneen beneen beneen beneen dund lay doon. lu mën a am ci àdduna mbokk moo ko gën. moo ko gën mais ci kaw mu. non mbëggeel moo jiitu leen. waaw ah, mbëggeel moo ko mais souvent problème bi day am ci parents yi c'est-à-dire dañ naan la euh, vraiment. non non booy takk. Hmm. Euh, aawoo. Euh, say mbokk. Hmm. mais est-ce que jamono ji comme ni ma ko waxee rek damay damay ñëwaat ci laaj bi est-ce que nit ñi fi mu toll tollati nañ foofu. est-ce que loolu du jamono boo xam ne jamono ba yàgg la. xam nga xam nga dama laa waxal ne la bi ñuy commencé émission bi ni la lépp a yàqu. Hmm. jamono moom lu baaxoon lépp dara baaxul. bu hmm. njëkkoon ni du takkul mbokkam. Hmm. du takkul am nawleem. kon yow say mbokk da nga ci ànd nii. ak jamono ji man ma takkul géwél. ak fi ñu toll nii. géwél laay takk ñeent yëpp géwél la ñu doon. ak say mbokk. géwél la géwél la jeexal géwél sama mbokk. dama bëgg nga gën a xuus ci mbëggeel bi dëgg dëggantaan bi donte mbëggee dafa doon loo xamante ni mm. moo la mu ëmb lépp mm. mais nit ñi parents yi dañoo am gëm-gëm bi nga xamante ni mm. ñoom ñaar ñi kat ay mbokk lañ ay ñoom ñooy jege nañ war nañoo mën a sëy mm. ku jigéen ki ku góor ki mën na bëgg de mm. mais ku jigéen ki mën na bañ mm. te jigéen est que nekkul ne comme par exemple moom ni mu war a bëggee dëgg-dëgg 100 ko bëggeewul est-ce que moom sëy boobu noonu dina fa def lu baax est que sëy boobu bu fa deful lu baax ëllëg mën ngaa jur jur doom yoo xam ne dangaan kii kat moo fi jël kii moo ko def léegi duway yaayam bu ko defee nag ñuy tuumaal yaay ja fekk na dañoo jàpp ne lañ doon dund ci suñu jamonoy maam rek moo war a muñ koy bëgg te ak dañoo doon moment bi nga xamante ni sa biir wax da nga ne am na ñoo xamante ne biñ nekkee xale yi tuuti leen seen parents jël da ngay jël mu muur yóbbu mm. est-ce que xale yooyu noonu ak xale yi nii benn mm. parce que xale yooyu noonu peut-être ah. ñoom seen bopp seen bopp waaw xale yooyu peut-être ñoom dara nekku ci woon. Mm-hmm. en même temps. Mm-hmm. xamuñu lan mooy bëggante xam te moment bii nag xale boo xamante ni xam na lan mooy bëggante. nga bëgg koo nga bëgg koo jël. lan mooy bëggante mais ndekki yitte boo xam nga xamante ne yow mën nga ne da ngay sëy ak moom. Mm-hmm. ah commencement bi mën naa ne bëggeel ca yàlla tax daf see war a am. na xam nga loolu lan mooy séntu. bu fekkee ne yow da ngaa dem pour seet yi tôt ou tard ngay ñëwaat bu fekkee dangaa dem pour sëy dangay dem pour jënd fa bàmmeel comme ni nga ko waxee sànq ki nga xamante ni daf doon dem romb bàmmeel noonu mm-hmm. kon nga xamante ne sëy dafa nekk li nga xamante ni maanaam doon naan bëggante moom moo ko war a gën a lal pare su ko lalee mu naan mm-hmm. kon tamit parents yi am na si ñenn ñi nga xamante damay aawula sama bopp te mbëggin bi ko war a dëggantaan am non non defal nag voilà non waxuma la non ba léegi waxuma voilà forcé justement ñu man damay d'accord ci yéen ci lu ngeen ni nit mm-hmm. ki booy sëy moom danga koy bëgg d'accord bëggeel bi mooy lépp waxuma nit ki danga ko war a bëgg sëy mbokk daal ma wax ko seen émission bii ku ko mën a am. Mm-hmm. moo gën moo gën mm-hmm. mais nag ci kaw ñu bëggante. Mm-hmm. ay bokk bu ñu bëggante waxtaan sëy ba am. mais léegi parents ñuy bëggante sa papa danaa ñëw ne la maa. waaw mais mais xam nga xam nga li tax ñu naan sëy mbokk xam nga la beneen bi dama ci d'accord. fi ne tey jii boo sëy woon sa mbokk. Hmm? nga dem fa Ousseynou ngi di sa mbokk ñu may la ko. nga sëy fa yàlla dogal nga tas. mais keneen danaan ba mu fa yóbbu sa xorom ndax doomi diw fa jógee loolu ñu war a jëlee ci bopp nit ñi mm-hmm. bu njëkk mbokk mosaana jógee mbokk moo fay dem bu sëy ba taseet yàllaa ko dogal loolu la ñuy wax jiw a xàcc mm. ngën a laata mi jur li ma gis mooy sëyu mbokk buñu ne euh, kii digi kii maanaam sa mbokk la da ngeen a war a mën a sa mm. comme ça fi as waxee léegi mm. te mbëggeel googu amu fa xam nga tey ji kooku boo ko takkee tamit jabar yaay lay doon dama ne la d'accord gi moo war a am d'abord sëy moom mbëggeel sëy mbëggante dañoo war a ànd ànd nga war a ànd ànd. waaw mbëggeel moom bu amul sëy mu voilà léegi ñu avancer très rapidement parce que temps bi mi ngi ñuy dab ñu gis ne tamit euh, Sénégal. Mm-hmm. gis nañ ne sëy yu bëri day am problème nan nga jàpp ne problème bi fan la nekk sëyu mbokk yi suuf. jigéen ñi mënuñoo sëy góor ñi ah, kon loolu de mooy caaf lu xam. Sëñ Tuubaa dafa waxoon ni. Mm. jigéen boo ko yor da nga koy mënal ba pare mënuñu ko. Mm. loolu nag moo jafe mais jigéen da nga koy mënal mënuñu ko. Mm. di jéggale. parce que jigéen da lay tooñ ba pare njëkk laa neex la gërëm du yow li hmm. ngay wax ci jigéen ñi maa astu dina ko nangu. ñu la gërëm ñu la yërëm. dañ lay tooñ njëkk laa mel. loo ko mën defal ci àdduna benn bis ñëw mu wedde ko. Hmm. loolu nag boo dee góore yow da ngay muñ. Hmm. di ko yërëm. di jëlale di jéggale. mënal ko ba pare muñu ko. loolu nag góor ñu bari muñu ko. góor ñu bari tey bu ñu ñu jàpp ni yow dañ laa may junni bi noonu rek ci sax ba def nañu noonu sax rek may la junni bi nii na kado la maa la ko may neexal sax <laughs> jigéen bi xanaa xamoon ni ñu ba dañoo jigéen mm. ci dëkk la mais dañoo àqu góor ci jabaram am na jaar waaw. Mm-hmm. nit ki soo ko jëlee kër ndeyam kër ndeyam la am àq joo war ci moom. maanaam ay ay ay ay jëpp yaa ko a wax. dëgg la waratu jaaxle ne jigéen ñi bari danañ yóbbu yamaat danañ yóbbu sawar mooy mais góor ñi bari jigéen ñi ñoo yóbbu loo xamante ni comme nga wax sànq rek. Mm-hmm. jigéen ñi dañoo dañoo nekk moment nga xamante ñoom ak góor ñi. Mm-hmm. dañ naan kon na libaasoon la ko wa antum libaasoon la ko. loolu mooy lan. ñoom ay càngaay lañ ci ñun. ñun tamit ay càngaay lañ ci ñoom. maanaam kenn ku ci nekk mënoo dem bàyyi morom ñi nga xamante ne ñoom mën naa ne ñoo yor soxna suñu borom dafa xam ne ay rijaal xawwaamuuna ala nisaa fii moom loolu moom góor bu nekk rek nga yor soxna war ngaa mën a xam ne kii yow hmm. ak nu mu mënti demee yow yaa ko yilif hmm. yaay borom këram yaa mën a taxawee ci moom foo xamante ni hmm. mën na ne yaayam jëm bàyyi sa kër ga taxawu taxawee ko papa xam tamit taxawee ko mais sëy yi dafa toll moment bi nga xamante ne mën nañ ne métti métti na métti boo xamante ne peut-être loolu daf ne nekk na loo xam ne du ñu war na parce que sëy da ngay sëy ak borom sëy ak njëkk ba même gan bi nga xamante ne day ñëw sax pour ganes ci kër gi sax da nga ko war a sëyaale loolu nag dëgg la. Hmm. mais dafa am góor ñi nga xamante ne mën nañ ne. Hmm. luñ la defal tey bu subaa ñu wax la ko. Hmm. par exemple kat maam Fatou Kébé mii ba ma koy takkal moom yoru woon dara meru woon dara. si sama kër la meree nangam sama kër la defee nangam est ce que kooku jar na di ko ndamoo ci kaw soxnaam. loolu d' accord naa ci. ni góor ñi amee problème xam nga ne góor ñi mënuñoo yore jigéen ñi mënuñoo sëy xamuñu lan <laughs> jamono joo xam ne nit ñi dañoo war a génn maanaam di bëggante ba pare doo ko sëy parce que souvent wax nga ko léegi parce que euh, dañuy jël kii rek ne la may nañ la kii may nañ la kii. Mm-hmm. mais souvent dañuy wax ne génn boobu nga génn nit ñi il faut que jigéen balaa nga kaa mën a takk nga génn ak moom mm-hmm. xamante ak moom mu xam sa jikko nga xam sa jikko le reste ñu eggale ko ci jëkkër ga bàyyi génération yi génn. mais ñi ngay gis ñuy génn di bëggante yëpp. Mm-hmm. génn bàyyi neex mais ba amee sëy bu du mat weer ma d'accord ma loolu ndax sëy fi ñu toll nii góor boo yoree jigéen boo ko yërëmee ko am ci lépp xam nga lan la li ñu mën a waxante mooy góor ñi ñoo yoratul jigéen ñi nañ war a yore jigéen ñi wala sëy bi neex <laughs> jigéen ñaa ngi sëy jigéen ñaa ngi góorgóorlu gis nga jigéen ñi dañuy nekk ci góor hmm. dañuy góorgóorlu mooy lan hmm. ñoo ngi ne ci kër gi du muñ hmm. xam nga tey jii bu ñuy sëy dañuy baax dañuy yedd ne ah ngeen demee muñ leen ngeen góorgóorlu ndax sëy dafa baaxoo muñ léegi nag muñ googu ngay toog dafa am ñoo xam se ne maanaam góor ñoo xam se ne ca loolee ca lañ dëkk rek teg ca seen tànk ci ah di la def la leen neex. te boo mm. waxee ñu naan loolu la waxoon. Mm. xanaa du dangaa war a muñ. Mm. nga laaj comme tey jii nga yor bi na war a demee léegi yoretu buñ la joxee dépense ca lañ yem. ah tax yow nga jëlee ko kër ndeyam ak kër baayam warloo moom lu bari. da ngay gis say xale yu tuuti li ma li ma wax. maanaam suñu génération bi dañuy sëy ba pare nga gis ñu gaaw a fóoti lu ko waral. góor ñu yor góor ñu loolu xam naa ko balaa xam nga dama ne dama def a sëy ak lu sa mbokk baaxul mais bu dee sa mbokk soo ko mosaan wax yenn sëy yi danaa diina na waaye aada bañ na. Mm. xam ni dañoo fonk aada dañ koo sàggane. Mm. sëy ku dul sa mbokk du ma ni araam na wala bon na bu baax la parce que nit ñi da nga gis mu ñëw gën mbokk wala gis nañ ko fi. Mm. da nga sa mbokk mu mel noo xam ne am ñoo xam ne soo gisee ñu bañ sëy mbokk la. mais l'essentiel que na doon koo xam ni yéen a mbokk lu ngeen di jom dama leen. dañu gis ne que ni xëy na ñi nga xam ne dañoo am idéologie que ni da nga sa mbokk tey am na ci euh, maanaam njëkkee nañ koy fekk. Mm-hmm. bu fekkee du mbokkoom téye bañ ko war a téye duñ ko ko téye même bu xale bi jigéen bi bëggante mm-hmm. ak góor gi nan bëgg sëy mais une fois que du mbokkam rek ñoom duñ ko nangoo téye parce que duñ ko am beneen bët lañ koy xool kii daal ab jàmbur la mais est-ce que loolu tamit euh, jàpp ngeen lu normal. non xam nga njëkkee. Mm-hmm. ba ngay am naa doxee ak moom njëkk ku naqaree dëkkal dina la def ak ceeb dina xool sa mujj wala mu sa nangam. mais xale yi yow miy sëy yaa xam ne luy yóbbu xam nga yow miy nga am xam nga dafa am loo xamante ne lu sëy man d'accord mu ci. muy lan. Sénégal ni ñuy def bu bu ñuy muur seen bi ñu bàyyi ba rey ba pare ñu daal di moom ñu génn leen ñu génn la basang bi mhm. imam bi commencé wax boo demee da nga def nangam loolu mooy la du ko dégg sax parce que ko dégg moom xel naa dama li nag diggante fi ñuy génnee basang yeeg fi ñuy muuree moo def jikko ci xale bi xale bi ci bi mu juddoo ngay def ci moom jikko xamal ne ko boo séyee nii nii nga war a mel mhm. am na ñoo xam ñi ngi sëy de am jëkko yu weex wala mhm. yu réew jëkko yu réew <laughs> teewul ñoom ñëpp ñu ngi leen di géré parce que boo waxee ñoom duñu la tontu d'accord ñu ngi sëy seen sëy boo leen tooñee ñun la baal ñu ne dañu war na baal voilà ñu ko seen ñu ko seen est-ce que di ngeen nangu njëkkee di dagg seen ak ceen wala mu xotti seen bu gudd. déedéet du sa mbokk yéen di ngeen nangu loolu est ce que. gis nga El mhm. dafa fekk ne comme par exemple doon jikko yoo xamante ne méngoo ngeen rek. donte am na ci njëkk yoo xamante ne moom benn. Mhm. boo leen defee dañ lay def. Mhm. boo leen defut dañ lay def. dañuy xool sax yow ñu nga nga ne nemm dinañ fexe yow ba. mais awee ko si côté boo xamante ni yow. nit ki bi naan ku lay jéem jéem jéem mënu laa am dina fexe ba dem ba si côté mm-hmm. bi la gën a jege. Mm-hmm. mu mu àll bi fekkee da ngaa aawul da ngaa aawuloo sa mbokk. Mm-hmm. jabar bi mën nañ ne lay doon. te El Hadj Ousseynou Ndiaye bu fekkee da ngaa takkal mbokkam boo xam ne bëgg ko. moom mën na cee jëfee li nga xamante ne moom ndigal waajur. mais du yàgg dara bu ko neexee daf génn ci wuti xa ci xale jigéen ñi. ah bu baax wala balaa yàgg dara mu ne takki koo xamante ne moom la bëgganteel. su ko defee loolu dafay nekk d' accord dafay donte nag donte nag bu yàggee dinañ utiliser. ma daa ma daa sa wasu waru baax. xam nga góor ñi moom comme que yow suñu borom daf laa may nga dem ba ñeent. yow kat sa mbokk mbokk bi lenn yow bëggoo ko. Mm-hmm. bu ca dugg bu ca engagé parce que boo ca engagé bu jigéen ñi bu dee jigéen sa biir kër mm-hmm. nekk di di di togg di fóot di yekk lépp di ko def mais bu góor gi moom da ci am problème. ndax euh, Mame Fatou euh, bët bi leen njëkk yi di xoolee bu fekkee ne doo mbokk dana am beneen bët bu ñu lay xoolee. njëkkee waaw waaw bët boobu dafa metti trop hmm. ndax sëy sëyu ñàkk ko doon sa mbokk. Hmm. tamit dafa metti hmm. te maanaam nañ ko mettilee moo méttiwul noonu ndax sëy moom fu ne la mën a feeñoo man d'accord ma sëy mbokk waaw maanaam ndax euh, dañ mbëggeel la sëy maanaam mbëggeel la ci nekk ndax bu ngeen bëggantee euh, li li sëy li ñu wax ci sëy lépp dafay mën a am ndax man ngaa koo yërëm mu yërëm la man ngeen a nekk saa su ne ci lislaam santaane muy ci lépp même que góor jigéen ki tamit dalay taxawu ci côté yëpp maanaam mm-hmm. bu fa mbëggeel amul nag moom góor gi maanaam saa su ne moom lu lay metti rek lay wut mm-hmm. ndax day wut bëgg lu si jeexal sëy ba mm-hmm. ba mu mu dem mu mën a seeti leneen te tey ji bu ko defee nag bu fekkee nag goro ba moo la fa indi loo wax ñu daan ne la muñal def nii naa bu ko defee mooy tax ngay doon goro moo tax lay doon maanaam nu nga koy waxee mm. sëy goro lay doon bu ko defee tey jii góor bu jot ci waatee mm. dama wuti keneen gën a féete ca kooko gën ko yow boo nekkee ca kër ga tamit ju dund di muñ goog yaa ñu lay muñ yaa ngi koy sëy waaye sab sëy neexul mm, te sëy moom lañ ca wax mooy tey jii na mën a neex bu ko defee nga mën koo sëy ci bànneex man faa am njaboot bu barkeel d'accord euh, Matar am na loo bëgg a wax ko euh, am na euh, xam naa waxtu bi en tout cas daal mm-hmm. na nga sëy koo moo gën. loolu daal mooy gros débat bi. moo moo koy moo gën. bu dee jàmbur la bu dee jàmbur la. moo baax na baax na bu dee mbokk moom moo gën. mu gën a. parce que bu dee jàmbur la suukar la waaye bu dee mbokk lem lay doon. lem lay doon bu neexee na ci. <laughs> mais suukar ak lem sorewul. waaw <laughs> waaye dee moo gën moo gën a sax suukar. moo gën. <laughs> asu comme xam naa ma jox la justement nga jeexal daanaka rek euh, ndax waxtu bi li ci des di wax ne émission bi moom neex na trop. voilà loo ciy sànni ci mbokku yi nga wax ak a bëri. <laughs> trop sax moom xëy na temps bi moom moo ñu uh-huh. wax moom mën naa ne bëri na trop. Uh-huh. sànq Matar dafa wax lu am solo. Uh-huh. muy def ne euh, jigéen. su fekkee tamit takk na Euh, dinañ ci jur doom yu baax mu ko mm. waxee sànq. Mm. ma ne ko ci anam ba koy sëyee. waaw ah, pas doom yu baax doom yoo xam ne say say deret leen. say deret leen waaw kay mais mën nañoo bañ mm. nga nekk mbokk ñëw si biir kër gi. man yaa ngi toog yaa ngi fóot yaa ngi paase di la war yëpp sa yër ngi koy def. mais dafa am lu am solo. mooy sa borom kër. ah foofa loolu nga xamante ne mën nañ ne doom fa lay soqeekoo. anam ba koy sëyee bu fekkee da koy sëyee ak xol bu man nga jur doom boo xamante ne ëllëg. foofu foofu laa jeexalee émission xam nga dañuy wax ni dañuy wax ni liggéeyu ndey liggéeyu ndey amul. liggéeyu ndey amul. day yëpp liggéey mais na day nangu. Hmm. jigéen dina xuloo borom këram wexxat di xeex ak moom di rayante ak moom mais di jur di baax. Hmm. ni ñi sax dañuy am problème waaye kii nan def ba ba baax. Hmm. xam nga moo tax lu mu wex wex. lu mu xeex xeex lu mu xuloo xuloo. bu waa ji ne kàpp néeg mu mel ne xaar. am na jigéen ñoo xam ne dañuy wax ni dafa am doomi digg lal doomi ak doomi kaw lal jigéen du liggéeyu ndey amul mm-hmm. tubaab yi sax seen ndey liggéey nañ mm-hmm. mais ndey day no xam lan mooy nangu ak lu mën a xew bu la sa tegee nga nooy nekk am na xam dina tëdd seen kër te luñ bëgg a faj faj ko loolu mooy boo juree amee doom doo xam la mm. su su wutul am am yoo xam ne dañuy wuti mm. soo di a mm. fonkaat soxna a baax a jàppal seen nga nga xam <laughs> naa nga laalal ma tuuti balaa parce que toll nañ jamono joo xam ne léegi ci koy yàqu gis nañu aussi Matar bi nit loo wax ñu ne day dóor. koo waxal lu baax xam nga Sénégal Sénégal li ko yàq li ko yàq. voilà nit ñi dañoo xamatu seen bopp. Hmm. dañ naan nit day gëm boppam dañoo jóg nit du gëm boppam nit day xam boppam. Hmm. aussi am na xale yoo xam ne mag ñoo xam ne boo leen ne sa papa lu mu tudd buñ la ko waxee mm. soo leen naan sa papa boobu ku ko jur lu mu tudd buñ la buñ la ko waxee jàmbaar rek te nit dafa war a xam juróom-ñaari maam ñëpp mu war a taree fàttee dafa war a jàng juróom-ñaari maam xam ñooy ñan xam sa bopp mais léegi kii boo leen ko sa papa lu mu tudd wax la ah. nga ne ko sa papa lu mu tudd wax la boo leen ko kooku lu mu tudd boo jàllee mu kare boo jàllee mu kare di nga dellu sa tàggool tàggool waaw baax na maa ngi sant ñëpp di mm. gërëm ñëpp di leen mm. nuyu yéen soxna yi di leen wax ngeen góorgóorlu jamono lu mu yàq-yàq nit dafa war a xam mooy kan xam moom boppam. dëgg la euh, di la nuyu baax Ousseynou. dëgg la Awa Ndiaye ak seen cameraman bi. di bàyyi sax di nuyu a baax waa 24. Mm-hmm. ak ci kontaan nañu ak gàttal booy yëpp di sant tamit suñu invité ne moo mm-hmm. di ko gërëm di wane mm-hmm. émission bi macha allah. <laughs> waaw man daal li may jeexale mooy xam naa ne sëyu mbokk daal luñ ci a a euh, euh, gën na. sëy mbokk <laughs> mën a xëy si sama mën a xam ne rek. léegi sëy yàlla nga xam ne sëy bopp la maanaam ñu jëlee sëy sëy bopp. man daal tax na sëy yëpp man dama ca xalaat ne sëy moom bëggante daal moo ko mën a. moo ko waral ko defee voilà jamono nekk lépp mën caa nekk ci yërmaane bi jigéen ñi nanam ñi ñuy wax ak lépp te góor ñi nag dañuy gën di jàppale jigéen ñi. waaw di leen gën a mën a déglu dina tax jigéen ñi seen xol yi yeex di leen mën a nanam. waaw c'est ça waaw ñu wax ne émission bi nag macha allah gis ngeen ne daal Sénégal yéen yéen a ko moom yéen yéen yëpp bu ko defee nañu di joxe bi daje. fay sant baax di ko gërëm soxna Mame Fatou moo doon tàggoo noonu nekk journaliste fii ci kër gi waaye sant bu baax gërëm soxna Asou la moom itam vraiment sant suñu invité bi Matar Boub vraiment le grand historien le grand web réaliste bi nga xam ne tey vraiment ñëw nga wuyu suñu fii ci 24actu rawatina émission bi nga xam ne mooy taaru Sénégal taaru Sénégal yéen dañu ko wax di ngeen cee bokk parce que yéen yéenay gardien du temps vraiment Sénégal mënuñu waxtaanu Sénégal sans ñu citer ñi nga xam ne ñooy historiens loolu nag moo tax tey euh, bi ñuy ubbi première numéro bi ñu ñu invité la. Mm. Euh, euh, mbégte dëgg la nag vraiment ci wuy si bi ci oyof bi ñu ngi lay sant bu baax la gërëm xam naa ne dinañ dégg dellu si waat mel na ñu doyaloo. dégg dellu si waat waxtaanu Sénégal. xalaat xalaat moom ¿eh? eh, eh, a boobu ne sant bu baax Serigne Sall bi ndax moom baax xam naa ne dafay yi lañ wax Serigne Sall ñu ngi koy sant baax di gërëm moo nekk ci caméra bi ñu sant tamit xale ñaanaan nga xam ne moom mooy gàpp ci montage yi di leen jox di jotee incha allah ci yeneen jotaay ci taaru Sénégal Sénégal yàgg na taaru jërëjëf